asalaamaaleykum mbokk yi nga xam ne ñoo ñu far di suivre seen chaîne Dakar Net TV alors euh, comme ni ngeen ko xamee rek l' actualité en temps réel lépp lu sogal askan wi dañ ci daal di ñëw rek dox ci indi leen ko ngir mën xam ngeen mën a xam li xew ci dëkk bi di nuyu ñëpp nag rawatina ñu nekk bitim réew waa diaspora alors tey nag dafa am loo xam ne dafa xew fii ci yoof ci booru Auchan bi euh, di euh, benn ëmmët lañ ko mën a tuddee boo xam ne ji naturellement ay jeunes génn nañu taal pëne yi baare tali bi lépp rek ngir di naqarlu li nga xam ne moo jëm ci dogal bi euh, kilifa yi jël nii dañuy dakkal julli jumaa yi ni pour ñu gën si am ay leeral nag dinañ doxantu laaj lenn ci ñi nga xam ne rek ñooy riverin yi wala euh, témoins oculaires yi ñu jox ñu nan la mbir mi demee ak nan lañ ko dundee. bon man dama doon euh, jënd ci Auchan bi bi ma génnee ci Auchan bi lañ ma laa gis nit ñi di ñëw ful bi ñuy saade xeer ak yooyu noonu xam nga parce que ñoom il paraît que dañu am lu leen métti waaw waaw lu leen métti moo tax ñuy manifesté wu ñu ne ma seen imam lañ jàpp xam nga dafa jiite tey mosquée bi affaire yooyu noonu. mooy mosquée Yoff bi quoi. waaw mooy mosquée Yoff bi mosquée bi nekk fii si ginnaaw. biir Yoff waaw Laayeen waaw. Uh-huh. noonu la demee waaw bon. mais saa nag comme ñu ngi demee saa ni ñun dañuy génn a daw daal xam nga balaa yeneen yi ci fekkaat daal. ñun ñëpp ay jullit lañ màkk tey dafa tëj fees tëj partout dafa tëj donc mosquée c'est vrai war nañu ñaan. mais bu rassemblement naree yokk feebar bi ba du ñu xam fan lañ jëm ak moom autant yu arrêté ko li may demandé rek mooy imaam yi ñu respecté quand décision yu ñu jël pour wàññi feebar bi sinon mën nañ dem ba ñoom fi ñu toll dinañ tëju di def ay ñaan te duñ ci mën dara. waaw effectivement ñun sax affaire yi daf ñu jaaxal quoi parce que déjà boo xool gars yi ni ñu jaaree sens interdit c'est pas normal quoi en plus que ñun ñoo ngi nii instant suñu liggéey taxaw na te am na ay commande yoo xamante ni commande jàmbur la ñoo ngi taxaw di ñu bëgg a ñëw fii si gis nga si station bi te ñoom seen manifestation fi ñu ko defee sax dafa baaxul si station bi presque tout près station bi xam lii nii day indi ay gàllankoor en plus que nii man daal pour man Sénégal daal gars yi da ngay rey kilifa yu diini yu baax yi fi nekk joxe na ndigal ni bu kenn julli gars yi ñii di jaar si suuf nii di julli man gis naa yeneen jumaa yoo xamante boo demee ay yëmbal am na si ay jumaa yoo xamante xam nga te jumaa yu mag fii si Ndakaaru ñu si bëri tëj nañu kenn julliwul man sama koñ tamit même kon daal gars yi daal man daal pour man daal wax dëgg yàlla duñu dese dégg waxu kilifa yi quoi. xam suis chrétien man je ne sais pas xam nga on a reçu de nos ordres sur le plan de notre religion on est en train de respecter ça mais il faut poser la question aux musulmans je ne suis pas musulman moi je suis chrétien. j'aimerais demander à la population de de de vraiment de réfléchir parce que ce que le gouvernement est en train de faire c'est pour tout le monde c'est pour l'intérêt de la population un jour il y a une épidémie qui va ravager tout le monde, c'est nous qui allons perdre. Oui, on va payer les pots cassés. Donc, euh, il faut que les gens euh, euh réfléchissent et, euh, et, et, et, avoir une maîtrise. Il faut que nous soyons des gens qui sont responsables. Parce que euh, la situation, chaque jour, on voit que les choses euh, augmentent de jour en jour. Donc, il faut que vraiment, on, on soit, qu'on ait la raison gardée. que chacun sache, que soit conscient de, de la situation qui est en train de passer dans ce pays. non c' déplorable c' est déplorable noonu mais bu dee dañu wax dégguñu quand même euh, solution extrême dafay am mais auparavant mën nañu leen gën sensibilisé wax leen peut-être là aussi dafay nekk une mesure dissuasive bu ko yeneen imaam yi déggee kenn du jël le risque di ko def loolu laa comprendre voilà. Oh, jàmm lay doon rek ci kaw euh, bu gars yi xam nga waxtaanee. maam dañu war a waxtaan rek bu ñu waxtaanee rek xam nga jàmm dina am te amul solo amul solo affaire léegi mu jàll xam nga loo gisee lu tax aussi ñi tere ñi ñu julli pour suñu jàmm ñin ñin la rek xam nga bii nii nga xam moom la ñëpp daw loolu moo ko waral xam nga mais jàngoro bi dina jeex léegi-léegi incha allah nañ def ay ñaan rek mu jeex xam nga nañ bàyyi seen imaam aussi ci kaw jàmm parce que tamit xam nga ñëpp la waaw man xaw ma ko mais suma imaam la aussi ko ñëpp la non même pas yaakaaruma côté boobu nag mais xam nga aussi euh, imam aussi baax na leen di bàyyi yenn saa ñi am liberté parce que ñoom ñoo def aussi ñaan yi xam nga waaw te te jàngoro bii nii il faut aussi ñamay ñaan xam nga ñaan moo ñu si dimbali aussi ñun Sénégal loolu la ñu xam xam nga ay jullit lañu xam nga ñeneen ñi aussi dafa ñaan mooy sunu sunu sunu mbokk yi xam nga chrétiens yi ñeneen ñi aussi dafay ñaan ñi def ñaan ku nekk def ñaan sa côté quoi waaw mais war nañ bàyyi aussi bon ñi di julli quoi vraiment war nañ bàyyi nit ñi di julli man moom loolu moom xam nga souhaité naa ko waa di bàyyi nit julli salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant ñun yëpp man dama defe ne ñun yëpp benn lañu amul catholique ba amul musulman la parce que feebar bi masiba bu rëy la lii yëpp sénégalais yëpp a am perte perte perte bu rëy la ñu am ñun ñu ngi nii depuis bu ñu wàccee ba léegi ñu ngi nii mënuñoo dem ndig dafa ne dafa am benn euh, imam bu julli ñun catholique yi ñu ngi nii ku dee fan yii yëpp depuis bi problème bi amee ak catholique nu mu fonkee niiwam daf ñu métti labe bi day mujjee dem hôpital bi def ko nii nii nii prière toute rek ñu gaddu dem yóbbu neexuñu mais nañuy suivre conseil ka ñu ngi bëgg a ñaan lii na jeeg ñu ñaan mu dem feebar bi na dem ñun lii bëgguñu ko parce que sénégalais xamul tëju tëju bi bu ñu tëju ñun yëpp a feebar parce que du ñëpp am moyen pour di tëju sénégalais bu yeewu rek mu ngi jël tànkawam di dem di ut lu muy ñëw jox jabootam yàlla nañu si yàlla musal nan dama bëgg ñu def ñun yëpp ñu doon benn suñu Sénégal dem kanam mais bu ñu waxee ñiy jaar nii ñiy jaar nii dañu ñëw bee yoof xale yi bare yoon bi lakk pono yi ñun sax dañu ragal ñu fekk ñu ki biir bis bi lu ñu desee ñu fekk ñu ki biir bis bi bu ñu fekkee ki biir musiba bi musiba am waaw yàlla ñu doon benn ñun yëpp ñun yëpp ñu doon benn waaw. la santé prime avant tout ñun ñëpp am nañu ay ay guide am nañu ñu ñu gëm mais avant tout la santé. tey jii bu ñu bàyyee ñu rassemblé wu ku ñëw wàll sa morom d'autant plus que feebar bi et puis pandémie la et nit mën na ko am sans pour autant nga am symptômes yi donc jege ak yow wàll la ko nga wàll ko sa famille mu wala la ci population bi donc ñun ñëpp ñoo koy gis après. dem ba fee gis ay xeer ay xayu ma ne li baaxul si man sama bi su ma ñëwee. gars xaaj ma ma yàq sa mburu taral nañ ma sama liggéey bëri dëkk bi lu mu lu mu méttee nii tamit waru ñoo def lii quoi war nañ réaliser neneen moo gënoon rafet quoi man instant yi maa ngi nii taral nañ ma maa ngi nii man instant yi xaw ma nu may def damaa préféré taxaw fii xaar affaire bi jàll ma gi waaye état bi ñoo si war a jël ay matuwaay yu bëri temps bi ñu taxaw te ay policiers ñëw ñu c'est pas normal kon man je vois que ñu seen liggéey quoi billaay Donc euh, nous prions vraiment que les choses puissent, qu'on puisse trouver la solution, que les, gens, même vous voyez les Dakar maintenant, combien ils perdent par jour Ils perdent beaucoup d'argent. Et ce n'est pas de leur volonté. Tout ça, c'est pour la sécurité de la population, pour que chacun puisse avoir la santé, pouvoir vivre, pouvoir vivre encore beaucoup plus longtemps. C'est ce que nous souhaitons. Donc, euh, c'est ça que j'ai à dire et que je dis aux gens que nous de faire, c'est pour notre c'est pour dans dans notre intérêt donc loolu rek laa am lu may wax. non lii moom rafetul quoi en tant que ñun ay jullit lañ ko waaw saa soo taxee ne yow dabar nga pour julli rek war nga war nga xalaat ne julli julli du ay affaire ay ay feebar yàlla la yàlla moo créé feebar bi kon julli kon xam nga teewuñu liggéey bi. kon xam nañ ne loolu kon kon xaalis moo lay ëppal njariñ affaire yàlla te un jour viendra tu vas mourir waaw ah, soo dee yàlla waxal lii après nooy def su ma sañoon moom lii moom duñ ko def juma moom tout sauf juma man man man moom nekkuma pourquoi contre laa nekk wax dëgg yàlla contre laa nekk. waaw ah, population bi moom corona bi nattu la muy muy muy seen mbokk chrétien yi tubaab yeeg musulman yëpp corona bi nattu la mais lu ma leen di lu ma leen di lancé mooy ngeen. concentré wu si li leen di xelal diwoo gel bi ak sol ay gants concentré wu bu leen nuyoo ba affaire bi wàññeeku ba pare li may wax état bi moom mu daan ñuy jàppale bu baax jàppale ñu bu baax parce que amul sécurité moom si bi.